par lool si ki n'a xam ne que moo Ousmane Sonko encore une fois beaucoup na lu jëm si discussion yi n'a xam ni itam ñu bëri yaakaar ne da ko daal di entamé moom ki nga xam ne que moo di de Pastef parce que jàpp na ni Sonko du daal di dil si ginnaaw li nga xam ne que moo di askan wi waaye exactement si sonkorisation daal di jàpp ni léegi doon daal di jógee si rapport de force ñu koy dem si euh, pacifiquement parce que arrestation il dafa daal di bëri euh, lu nu mel nag mënuñ si daal di alors loolu daal di wax exactement waaye itam jàpp ne ni euh, ki n'a xam ne que moo Ousmane Sonko bis bu ñu manigancé ba daal di koy li nga

Euh, di li nga xam nekk moo justement coalition euh ñëwaat pour daal li nga xam nekk moo remobiliser li nga xam nekk moo ses troupes joxaat espoir li nga xam nekk moo jeunesse bi dañuy daal di jël ki nga xam nekk moo Jules Sambou moom itam gisoon nañ ko fi barki démb ñëwoon na si nu mu gën par rapport ak ki nga xam nekk moo di euh, ak ki nga xam nekk moo di justement euh, doxinu Mame Boye waaye itam ak soxam wax di ni li nga xam ne tam wax na que ni mam boy dafa sacc turu li nga xam nekk moo partem alors da nga koy daal di jël Jules ñu lay nuyu de les ziar yaa ngi en direct sur les antennes de Sénégal 5 TV baye nga daal di devenu euh, spectateur juste sans mots euh, de euh, Mame Boye Diao dorénavant ex li nga xam ne modi ben Bokk allo Jules ñu la. allo allo oui Jules ñu la bu baax baax. maa lay fay bu baax fallo waaw Jules malheureusement dama nek ci. ok ok.

moom dafa créé woon benn coalition bu jëm ci sens boobu. boo xam ne nee na dafay briguer li nga xam ne moom mooy suffrage sénégalais. Hmm. donc euh, ñun euh, je pense que ñun li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy def ak lu ñu tudd euh, dama jàpp ni Soham Wardini dafa bëgg tout simplement jéem a mooy ci suñu bës comme ni ko booy di waxee pour jéem a xool ni muy def ba nit ñi xam ne moom am na coalition bu demee noonu. mais loolu du débat warul mën a nekk loo xam ne dañ ci war a am téetam tool. Donc c'est un nom que nous, nous avons choisi. Et je pense pas mais est-ce qu'on aurait mais je mais Jules, mais je est-ce qu'on aurait changé mais je est-ce qu'on aurait changé vu que Nina un homme là paraît il a toutes ses preuves il a tous ses documents il a ramené tam t'en attesté waaw quelle sorte ces preuves quelle sorte li nga xamné mom moy ki mais en tout cas ñun bañuy def ak bañuy ñuy tour bi dafa am ci base ben concept ak ben logique bi nga mom lañ ko jëlé. donc logique bobu non je pense pas que nit dina joggé feulé euh, kenn xamuloon coalition am kenn yëguloon coalition bobu parce que suñu coalition. génne mais su nekkee ça existe euh, euh, su nekkee ça existe administrativement. suñu suñu suñu bës. alors waaw léegi démb quitté ngeen def ngeen seen sortie officielle ñu bëri nee neen da ngeen woor le président Macky Sall exactement est-ce que réellement trahison le Jules. non man gëmuma ni trahison dafa am parce que boo nekk nit. Hmm. Allô donc yow war nga allô que oui. tu m'entends Allô, oui allô oui euh, nga ne du trahison là exactement. non non amul ben trahison amul lenn li nga trahison fidélité au contraire daf am. Hmm. parce que dañu une ci parti bi di subir pendant presque 12 ans. Hmm. donc 15 ans même je dirais depuis l'opposition ba avons ba à parti bi tout ça. Hmm. donc on a toujours respecté les directives du président de la république mais nak mom dañ ko tànnoon tànnaluñu ñu ko. donc moom warul mën a wëlbatiku di ñu tànnal ki nga xam ne ñun jàpp nañ ni moom la ñu war a àndal donc ñun ñooy xool ki nga xam ne moom la ñu sentir comme ni ñu ko tànnee woon en 2008 ànd ak moom dans l'opposition ba toll feeg moom ñun ñooy xool ki ñu doy tamit ñu tànn ko ànd ak moom ci élection présidentielle. donc bàyyi ngeen président Macky Sall instant bii nii. non du bàyyi président Macky Sall ñu ngi koy remercier di ko di ko di ko di ko di ko ndokkale ndokkale autant pour moi par rapport ak li nga.

non mais euh, on est très content du, bilan du président de la République. Hmm. parce que ans on a été dans le mandat on a eu à, avoir des postes de responsabilité gérés donc on est comptable de la gestion du président de la République. mais le fait que des failles le fait que dem avez les failles. Si le le projet le plan programme ñun ci améliorer ba mu ngi indi yenn conséquences donc raison de hmm. plus ñu wax ko hmm. donc c'est pas que euh, dañu nekk ak nit yi rek dañu war à tout instant di ko naan lu mu def rek ñu ne baax alors que day am des fois yoo xam ne du du du du day xaw a salfaañe par rapport ak li nga xam moom la population alors mais ñu ne ñu ne démb seen prestation était une prestation d'attaque lu nu mel euh, dañ koy confirmer wala non amul benn attaque buñ def luñ def mooy euh, rendre hommage au président de la république nous respecté li nga xamné mom moom moo fi nous. Euh, nangul ko li nga xamné mom la ci Sénégal japp ni comme Nous bokul bu bokone dañuy top ci ginaaw mais comme mom bokul war nañu mëna jël suñu yoonu genn euh, tracer chemin parce que ñun également dañu am vision bi nga xamné mom lañu am pour Sénégal Nous alors euh, dem aussi nous, gis neen li des coalition Bokk alors loolu le non depuis démb euh, xam nga ñoom ñoo nekk ci lolu ñun on a on on veut que le débat tourne autour d'idées. Bu mu nekk ay débat yo xamné par exemple ay attaques personnelles ak yoyu. Motax bo xolé ñun ci lu ñu wax moy dañoo bëgg réconcilier sénégalais yi réconcilier sénégalais yi moy ñun dañoo tolloon ay jamono yi nga xam en politique ay nit dañ doon bokk te bokk gis-gis politique waaye mu doon neex légui hmm. mais légui ay nit buñu ñu lé gis-gis politique déjà ils se regardent en chien de faïence ay hmm. ennemi la def sen bop hmm. té loolu dafa sax Sénégal té loolu dafa wara mëna daj donc cette façon de faire de la politique là nous nous voulons la changer nous voulons amener du renouveau nous voulons amener lu bees tàkk te malgré cela fi ngeen bokkoon te cela te malgré cela fi ngeen on va pas répondre à ça ñoom dinañ attaquer dinañ def yooyu mais ñun on va aller sur le sur sur le camp des idées on va aller sur le camp des programmes sur le camp des débats d'idées à yooyu mais nous duñu pas nekk ci débats d'exagération des d'attaque personnelle alors euh, wax mais démb ngeen aussi euh, ngeen jàpp injuste la à xam ne alors nous bëri ne nous pour mais peut-être pour euh, victimiser le fait que nous avons un Boye amul accès à stade qu'est-ce qui s'est réellement passé exactement Jules. le président Mamboy Boye Diao dafa jënd ay ba mu ay ticket mu and ak ay dem pour sétane match bi avec d'autres jeunes qui ont leur ticket. mais après après après la première période là. Euh, après non mais pourquoi vous attendre après la première période. arrivé alors que la première période mu ngi ci biir. ok euh, le le match avait déjà commencé. Hmm. parce que ba ñuy jógee le temps ñu pareil sur suñu conférence euh, suñu point de presse paré également aussi wax ak la presse ak yooyu noonu waxtan sa teg ñi nga xamné ñoy militants et ça a pris un peu de temps ni jógee fofu jubali stade pour dem seetaani match bi malheureusement bañu ñu au niveau du du du terrain bañu ñu té ño interdire l'accès parce que tout simplement ki nga xamné ne mo moo ci porte bi dafa né dañ leen wo jox leen instruction né leen ñun ak ñi nga xamné ne euh, Mame Boye Diao ki nga xamné ñi mu andal moy mm. ñun mm. duñu mëna accéder li nga xamné ne stade donc c'est mu mu préciser ñu ni une instruction du ministre des sports te ministre des sports ci jamono ji japp na ni kenn la ko xam mom moy premier ministre en même temps Amadou Ba moy gérer ministre des sports donc ñu doon peut-être mu jappé ñu comme ñun ay adversaire par rapport ak yi nga xam moy élection présidentielle yi nga xam mom la jëm donc mu commencé yefum def affaire dictature di ñu bloquer pour ñu baña yegg fi nga xam moy euh, ci bi stade. donc japp na ni amul ben victimisation mais réellement da ngeen amone bëgg-bëgg dem sétane ko. mais euh, ba ba def nañu ré sax parce qu'on s'est dit que à peine. Euh, à peine nous avons mis un pas dans l'opposition à peine commencé à ñoo indi yenn problème yi. mais tamit Jules nag Jules Jules Jules yéen naka ngeen toj mën a tojee si suba si ngoon ngeen bëgg a dem indi scandale ci stade ba. non indiwuñu scandale ci stade ba ay ay citoyens sénégalais lañ yoo xam ne dañoo yàgg waru mën a des seetaan. mais est-ce que Jules bi mais mais mais est-ce que Jules bi euh, vous êtes bien conseillé euh, de votre de par votre communicateur Mon conseil mon conseiller na leen parce que là c'est une forme de communication boo xam ne itam dem bëgg ko jàllale. non du communication buñ ñu jàllale sa à dire que ñun ay citoyen sénégalais lañ def nañ lu ñuy def dans la hmm. donc ñëpp kontaan nañ ci ñun. Hmm. donc on a considéré que après loolu war nañoo mën a dem léegi leneen parce que Sénégal la ñu ñor euh, Sénégal la ñu nekk moo nekk ci suñu xol donc wañuy dem au dem li jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, comment j'appelle ça. Euh, euh, euh, supporter sénégalais yi. supporter équipe nationale en tant que citoyen sénégalais ñu tere ñu alors donc ku nekk bi dafa jot ay consignes vous interdit euh, vous interdisant l'accès si biir stade bi. man kii laa bëgg dem tribunal waaw. alors donc ku nekk bi dafa jot ay consignes bañ leen dugal bañ leen nga dugg stade bi. effectivement non la demee. alors mais qu'est-ce qui en qu'est-ce qui en est suivi après Mame Boye dafa respecter décision bi jël ay biyam dem ñibbi non dañoo respecté exactement li am rek li li nga xam mom mo am loolu lañu ñu respecté. résisté woo leen résisté woo leen ñu on n'est pas violent donc ñu génn tout simplement dank rek dem suñu yoon. alors mais li encarnation digganteeg euh, Mame Boye Diao ak euh, Amadou Ba naka na ko daal di jàngatee est-ce que lu nu mel war na mëna am euh, justement ay fin yu xaw a dangereux. par rapport ak seen relation non ñun nekkuñu ci ci ci boobu comme liñ ko waxee rek. ñun ci débat di lañ nekk nekkuñu ci débat de personne. nekkuñu ci ci yëf yoo xam ne fay am ay attaque personnelle on est pas dans la violence. donc on est sain on a on peut faire une politique saine donc nekkuñu ci ay affaire de xeex ak yoy non alors euh, ñi nan yeen ak Macky Sall rélo wo len lool aussi ban tontu nga ci ene jur ñu daal jéxlé fofu en en tout cas ñun ñu ngi ci suñu yoon. donc ñu né rélo amul ñu né rélo amul ay candidat parallèle mo am. am nañu droit am ambition pour rew mi donc je pense pas que nit aussi également war na mën taxaw feulé di xalat xalatam di wax lu mu bëgg wax en tout cas ñun on est ci suñu ligne nek ci suñu posture donc am li nga xam moy suñu objectif lool lañ nek alors ñu euh, les remercier au bar, bar, bar, bar. Euh, C'est d'investiture bi annoncé annoncer le 30 entre entre temps yan euh, plan d'action ngeen war a mën a peut-être pour contrer Amourba. en tout cas nekkuñu ci contrer parce que. ñun ah mais contrer les autres candidats mais contrer les autres candidats. li ñuy wax mooy ñun suñu suñu suñu suñu vision bu ñu am. Hmm. moom lañ bëgg sénégalais yëg ko ñu xam nous ñun lii lañ bëgg pour Sénégal ñu nekk ci donc waxtaan ceeg sénégalais ñu jéem koo épouser. donc nekkuñu fii pour attaquer qui que ce nekkuñu di xool politique keneen ak keneen donc les attaques personnelles ak yooyu ki ci ne moom moo ci ne ñun c'est pas notre ligne à nous on est dans autre chose. alors dégg nañ ñu sax ñu ne sax ki nga xam ne que moo di Mame Boye peut-être à part Kolda du fa fin boobu du fa am dara moom mu ne Pikine lay commencé sax campagne génn li xam ne que Dakar. loolu ban genre de communication la bëggoon jàllale. incha allah Allô, euh, ñu lay jaajëfal ah bu baax a baax baax a baax Jules euh, ah si li nga xam ne que solo si disponibilité bi encore une fois donte yaa ngi yaa ngi si yoon euh, justement may fàttali aussi nous étions avec ki nga xam ne il fait partie